candidat numéro deux wàcc si na ci réew bi barki démb gis naa état de forme bi mais mu ngi dugg di benn tànk caay joo xam ne ni muy Omar te rëg-rëg dégg nga fii li mu fi waxoon Omar Kane rëg-rëg nekk benn champion boo xam Sénégal yëpp ñu ngi koy fay xel mm-hmm. gannaaw bi nga déggee diggante boo Niang li mu tontu Omar Kane Reug Reug ak état de forme bi boo Niang a see ci réew mi en tant que champion du monde grand Mohamed Ali Ndiaye noo jàngatee ak Omar Kane Reug Reug bi nga xam ne tey jii mu nga ca Dubaï war a ànd ak équipe bi mu war a àndal dem États-Unis d'Amérique pour compétir yi bi nga xam ne nii mooy combat bi nga xam ne nii bokk na ci combat de rêve bi nga xam bépp doomu Sénégal war na cee mën a ànd moom ñaanal ko ci ndam muy combat bi nga xam ci lay joué ci niveau MMA war cee ànd ñoom Éric Favre ñoom Ibrahima Faye Peuz ñoom ñëpp ànd na ñoom ci niveau Amérique nan nga jàngee combat boobu ak arrivé Boy Niang bi nga xam ne nii ci réew mi Sénégal gépp ñu ngi koy bàyyi xel ndax tey jii Omar Kane rek combat boobu muy comité États-Unis moomu ko combat am la a combat wu Sénégalais yëpp jii fi Sénégalais yi toll moy gis nañu Omar Kane rek muy jël drapeau Sénégal di ko Amérique ànd ceeg ñom Ibrahima Faye Beuse ñom ak ki nga xam ne mooy ak Jim Doobu yëpp waaye li lay laaj moy arrivé Boy Niang numéro 2 bi ko seetaanee loo yëg. Euh, euh, macha allah Boy Niang félicitations il fait du bon boulot wax deug yalla parce que forme bu muy indi ni machallah ça veut dire que ni nak vraiment amna na mom te xam na

jamono juñ toll aussi il est en super forme ah. xamni combat mu jëm nañ diko préparer ci MMA bi tamit lu ñor la ci ay aussi ci di ci vraiment dañ koy féliciter encourager ci bi nga ce qui veut dire que ni dans le monde du sport xel Sénégal dafa bari té Omar Kan rek rek bokk na ci ñi nga xam tane ñoo tax sax sport bi di gën a bàyyi xel Sénégal parce que fu tourner fii ñuy def sport dañuy naan oh le Sénégalais rek rek il se prépare ça veut dire que ni fi mu teg tànkam boo foofu la wan na aussi Sénégal yi képp ku bëgg a def MMA da nga koy pratiquer bàyyi na Sénégal léegi boo ko gisee li ci ëpp bu amul combat mi ngi fale di ko di ko pratiquer pour aussi mën a nekk dans le bain c'est la même chose que bëre mën bëre ba ngay nekk di préparer pour ñëw ci arène bi da nga nekk ci mbappat yi di bëree ba ñëw ci arène bi tey yàlla def la muy def donc tànk yooyu tamit la jël ci MMA bi loolu yàlla na ko ci yàlla defal jàmm ak salaam. mais boo ñëwee loolu nag bu jógee bu jógee ci loolu nag. ndax boo ñëwee mën naa daan rek rek. ah bien sûr. boo ñëwee mën naa duma rek daan ko. laa ilaaha illallah muhammad rasulullah lu mën a nekk la fa dem. xam nga combat boobu tey xam nga li tax combat bi neex mu nekk loo xam combat yi mel nii làmb soxla parce que même génération la presque li ñu jiitantee kii daf lay jiitu tuutu un la expérience ça veut dire que ni toll ci seen digg doole combat yi combat du xam nga combat bi du combat combat que ni ñoom ñaar ñëpp kenn ku ci nekk dafa am loo la amateur yi di xaar que yow tu es le meilleur combat bi ñom ñaar kenn ku ci nek am ay qualité yoo xamante ni ute naag sa morom parce que Omar Kane nak am ay qualité Boy ñaar tamit am na ay qualité yo xamanteni tay ji wax deug yalla combat mak rek rek bi non duma gis combat bu ko dakk di nga conseil Omar Kane rek mu xex Boy ñaar baña xex bu xexol ak Boy ñaar lu muy def bu xexol ak Boy ñaar bu xexol ak Boy Niang mënul am dara. dama dik Boy ñaar ñaa taxaw démb ne boo rëg bu dee xeex boo ñaa ko di gën a def ci ay preuve bu dee bëri ay champion boo ñaa gën def ay preuve bu dee daan mbër ay jëli ne boo ñaa a def ay preuve ci làmb ci loolu loolu la boo ña bi nag boo gisee préparation booy ñaar da ngay xam ni day ñëw xeex si loolu fa xaar ko que ni day ñëw xeex bëri parce que moo tax euh, booy ñaaw ci combat bi nga xamante ni moom la jógee da ko kiyee ci lu bëri am na ci am na am na ci lu bari tey jii ci lu mu lu mu lu lu mu ko jàngal ci ay manquement yoo xamante ni tey jii dafa nekkoon ci moom c'est pas pour rien que ni tey jii mu toog boolewul dara ak wax ju bari làqatu du liggéey ne combat bi maa ko jëlaloon sama bopp parce que tey man ci bopp maa ne jox leen ma rek ma wan ko ni ko tey du ma moromam donc ça veut dire que ni tey moom ci boppam tey moo dem a l'affrontement jox leen ma Reug ki nga xam ni kenn bëggul jël avance am jox leen ma ko su ko defente ni man moo wan ko man du ma moromam donc Fadam Boy Niang moo la xam li mu yor li mu yi fi mu jëm lan la combat bi di wax ji bëri sérénité bii nag ma gis nii sérénité bi mu nekkee man ça me rappelle ça rappelle juste deux choses ay préparation bi nga xam ne tey gis naa ko ci na mu ko doon def sérénité bii mu am nii benn bi muy préparé Sa Thiès ñaar bi muy préparé Balla Gaye sérénité boobu tey laa gisaat ci laa gisaat tey ci Boy Niang bi nga gisee sérénité bi état de forme Boy Niang bi nga ko gisee mu wàcc sol blouson di def benn tii nga gis ko xam nga xam nga waa la te Pikine dañu boy waaw waaw di wane ne moom play boy la ah. toog rek dañuy bi nga gisee boo ñaax état de forme loo loo wax mais Fadam la bogosité c' est pas donné à tout le monde te booy ñaax ñëpp xam nañu c' est le bogos. bi gàtt na mm-hmm. mm-hmm. waaye Fadam ne leen ñu lay xajal kaasu kaasu murit waaye su defee sa a di gën a tàng kaasu murit ñu la koy defal di ko jox ku lay xiibal da war a xiibal kaasu murit Fadam. <laughs> mais bi nga gisee état de forme booy bi nga gisee état de forme booy ci terrain bi indi état boo xam ne amul benn grade ci yaramam. Loko ko machallah jek allah ba ag ci lol sax parce que dang koy gis rek mu taxaw ni mu solo ngay xamni ki yaram bi jek na ba ci lol don si be cool mo le ne liggéey amna na bo xamni xam ne fe ci dafay ay si nya fofu la toll. rek rek nak c'est bien toujours égal à lui-même ça veut dire que ni dama ragal ni combat bi mu bëgg jël à la légère. contre Boy Niang bu la légère waaw da ko jël à la légère yaakaar naa ni bu deful ndànk bi lay combat boobu dina am lu ko ci bett nag. dégguma grand Aliou ma gis ni combat bi mu bëgg ko jël à la dina am dina ko gis lu ko bett bu mu fàtte ni cappaaculi bi lay bëreel booy ñaaw xale bu bëri pexe am loo xam ne dafay ñëw pour indiwaat ko am loo xam ne dafay ñëw pour wane ko Reug yow je pense que ni tay defal taxaw lu nga delluwaat ginnaaw xoolaat sa bop xolal fi nga jëm fal ak ki ngay dajal kan parce que combat bobu du yomb ci ñom ñaar ñëpp ah. ci ñom ñaar ñëpp du yomb. question bi ma lay laaj question bi day dugg ci niveau professionnel wa waaw na naa ne sama dernière question ak yow ndax yaakaar na grand ali Ndiaye nek champion du monde mo tok ak yow di laaj te laajuma la ci reul mi war a compétir. États-Unis ci benn hmm. préparation boobu ci lay préparé waale Boy Niang ndax distance su combat bi jàpp les deux mois lay doon combat États-Unis bi ak combat bi mu war am Sénégal ndax préparation bi du am dara lu impliqué wu ci côté rek rek voilà. non du tout au contraire avantage le sax pour moom rek rek. avantage li tax mun na ci combat bi avantage la ci combat bi ma wax la tax ma avantage li combat bi. Mhm. xam nga boo préparer compétition. Mhm. ce qui veut dire que ni tey rëg beaucoup boo ni ni ni ni ni 620 nii. Mhm. soit cent vingt kilos wala mooy tout, un poids de forme extraordinaire pour un athlète comme regret. rëg tey jii muy dem préparer une compétition. te compétition bimi muy préparer du compétition bu ndaw mu jóge fa dem compétition boo ñëwee ci biir compétition ba génn ce qui veut dire que ni tey yaa ngi ci beneen état d'esprit tu évolues mhm. leneen li ci des deux mois yi ko ci desee du loo xamante ni day wuti condition physique wala déedéet la muy wuti xam nga mooy lan réglage la muy defu si waat Sénégal mooy réglage fa damay dégg réglage liy ñëw def ci Sénégal

Euh, mang lay ñaanal jamm bu baax di la wax ça bouge pas alaaji Mohamed Ali Ndiaye bu baax mi tout le monde connaît la musique alaaji Fadam euh, di la ziar bu baax di ñaan na yalla defal la jamm ak salam rek senegal Sénégal jëm kanam ne Mansour Ba kanam bu géey bi danañ ci ñew legi grand Ali Ndiaye kontaan naa ci yow gaay amna am na solo yaakaar naa ne kooku ñu dalaloon